waa asalaamualeykum gannaaw ba nu sant yàlla julli ci yonant bi tey dañuy gërëm képp ku fi teew ñu woote bés boo xam ne dañ ne bésu sargal jigéen ñi la kenn ku ne nag am nga nooy sargale say jigéen fii ñu nekk ni di pencum lébu mu tudd conseil notable bu Grand cap nga xam ne nii lépp aada ak cosaan fii la ñu koy waxtaane ba ñu sampee nag conseil bi muy yëfi Lebu nag kenn ku ne ñu jox la domb gi nga xam ne moom la sa maam takkoon moo xam day ji réew la moo xam saltige la moo xam jaraaf nga moo xam fere nga moo xam laman nga ba ñu ko kenn ku ne ba solo la ko ba pare nag ñu ne nag léegi àdduna ni mu tëggoo nag kenn mënatu dem bàyyi jigéen donte mag ñi nag bàyyi ñu woon jigéen ñi mais dañ leen daan laaj seen xalaat ci biir néegi suñu paree dem yóbbu ko sa penc ma léegi nag jamono nag moo wëlbatiku te nag bu fekkee ne na bëgg nga dox ànd ak jamono da ngay dox ni muy doxee moo waral ba ñu tànnee ndomba yi comme ni ma ko waxee ba léegi ñu jël la cëru jigéen bi jox ma présidente des femmes bi mais ba nu ma ko joxee tamit dama ko ànd di ko ak liggéey ak jigéen ñu jàmbaare jigéen ñu jàmbaare yi mooy jigéen ñi nga xam ne ñoo nekk sama wet bokk ak ñi nga xam ne ñoo ngi ci biir saal bi bi ñu chaque jour fii la ñuy nekk di xëy chaque jour di liggéey di doxal jigéen ñi di waxal jigéen ñi di dox sa cosaan goo xam ne ni ñoo jigéen ñoo ko bokk parce que jigéen ñu jàmbaare ñu ngi si base bi jigéenu jàmbaar yi ñu ngi ci tool yi jigéenu jàmbaar yi ñu ngi ci boo demee quai de bi jigéen ñi kenn mënu leen lépp lu fay keccax ñu di ko transformé jigéen ñee koy def fii 5 heures du matin tey boo ñëwoon ci marché Tëngéej bi jigéen nga fi fekk ñu wàcc saako yi tubarkàlla nelawatuñu jigéen ñi dañuy teel a xëy di guddee wàcc ma dem si ñoom nag waxtaan ak ñoom mais ku ma ci dem rek jàmbaar nga mais dafa am loo manqué muy fexe xàmmukaay nag liñ naan kayitu judd gi moo xam association la moo xam GIE la moo xam entreprise la ñu xam ne yooyu yëpp dafa manqué woon ci jigéen ñi ñu góorgóorlu la ba ma ñëwee ne delloo ko waat si loxoy góor yi nga xam ne ñoo ñoonu teg seen kanam ñor ay loxo yu gudd nag tubaarkàlla macha allah ñu fexe jàppale ma nag ba jigi ñi am GIE ñi am association kenn ku ne xar kanam boo waroon a am ñu di la xàmme ñu fexe ba ma am ko ba ñu pare ñu owaale si formation ñu jàppale jigéen ña former leen nag lan moo des taxaw financé leen te yàggatu incha allahu rabbi léegi la suñu kanam ñooñu nag ñi ko def nag wax naa ko léegi mooy conseil des notables bu Grand Café kenn mën leen a fay ñu woote tey na 8 mars Aïda wax na ci thème bi mais man thème bi dama ci dolli mooy abbaani jukko yi nga xam ne ne moo tax léegi njaboot gi changé dama ne ñun suñu jukko yi maam yi ñu yoroon mu ngi fi mais dafa xaw a ñu bëgg ñu sulli ka mooy lan su jëkkaan yow xale boo gisee sa moromu pap la nga doon def daw bàyyi ko parce que ma xaritu papa da daan yar magu papa di yar yaay di yar xaritu yaay di yar dëkkandoo yi di yar léegi loolu amatul moo war a li xew-xew ku ne gis na xale yi tux mi léegi naan gi léegi agression bi ko àndulaa sa sago loola nengooy def loolu lan moo ko waral abaani jikko moo ko fi indi man sama tem ci loolu laa ko wax oo nag yaay yi li tax oo yaay parce que jun daka wax te mu wax wax bu wér wér nee na tey xale bu demoon école soo ko ne dama uti bi wala kay bu demee ca yaayam lay jubal kon yar bi yaayu ñooy jëmmali papa yi bañ nañ ko ba dañ ne àdduna bi jigéen ñi cinquante 52 pour cent yi jigéen la kon noonu bu nu defaraatu defaraatunu jikko yi tey waatunu njaboot kon relève ba mel nan la ñu am ëllëg tey loolu la ñuy taxaw di ko wax di lancer appel na bépp yaay gannaaw ba ñu leen sargalee ba pare mooy nu jubluwaat si njaboot gi waxaat si njaboot gi di leen xoolaat di leen fàttali seen cosaan di leen wax nan la ñu mel gis nga bu jëkkaan tagga lan moo ko fi andi woon mooy dañuy taxaw di la wax la sa maam daan def sa pot de chéri di ubbeeku mu di la jom di la yokk yokk yokk ngor def la fulla ak fayda dama ne loolu lañ bëgg ñu delloo sa mu ngi fi rafle abani jikko laa ko tudde de moo changé njaboot gi kon nu ngi lancé appel ñëpp gannaaw ba nu sargalee yaay sargal bépp yaay bu taxaw nekk si jabootam di ko jàppale parce que jigéen ñi amuñu moroom de jigéen ñi noonu nekk si kanamu góor ñi newuñu si ginnaaw góor di leen jàppale boo nu joxee benn nu dolli si juróom kon jigéen ñi ñoom kenn amul seen fay ñoo yeewu fajar ñooy jëkk a yeewu mooy nooy mujjee tëdd kon sargal nañu leen ñoom ñëpp di sargal na jigéen ñi nga xam ne ñoo nekk tëngeej man dama am idole mooy kan muy Adja Aram Dieng nee naa mooy sama royukaay dama ne ba ñëpp a complexé taxaw wax olof waxatumalaa laa moo ko jëkk wax sa assemblée nationale tubaarkàlla kooku dama koy sargal ma mooy sama royukaay moo fa jëkk wax olof jëkk fa lakk ay lebu ma di ko sargal fa mu nekk yàlla na gën a fi mu jëg ñun nag am ay ndaanaanu jigéen si département de Rufisque ku mel ni kan ajaa Xaar may ma jaago ko kenn mën a wax ca sant tudduloo ko ku mel ni Awa bu ma ñëwee ci politique si politique si taxawaayu jigéen Awa Diop lu nekk taxawal na ko fi département Rufisque di ko xeexal jigéen ñi ngoon ndooy noonu euh, comment dirais-je euh, Nioro Ndiaye noonu jigéen yooyu tamit dañ leen di sargal tey man du ma dem ba États-Unis di sargal ay ay Anne Kinsley man jigéen ñi jàmbaar département ñoom la sargal sargal nag ma kaw wax aada cosaan te ma ci yaa Fass Seck li tax li ñu naan manoon ma man mën na jinne man na reen kooku jàppale na njabot nda bu jëkkaan dëkk bi xale dañ daa fo jinne min bu jot nga jomi wa ya fasé kenn manuko ko ci woon muy ma ko sargal si jàppale gi mu daan jàppale jabot lu dal sa doom boo taxé mu jappale kooku manuñu ko bañ a sargal sey si pencum lébu ñong ci si sargal yaa fasé ko di ko ñaan a sekk tamit fa mu yàgg a ak aatu fa mu nekk yaa na sunu borom yërëm ko xare ko aljana gërëm sunu mareen aja mbaaw li tañu ñu nak nag day jigéenu jàmbaar koo xam ne ni toujours toujours mu ngi fexe développement dox jigéen ñëpp lay jàppale si développement moo xam formation la moo xam euh, moo xam financement la da ciy taxaw ak suñu secrétaire général madame Fall moom it ñu koy gërëm di gërëm na la grand saltige Maodo Ngom li dama di ko gërëm cosaan ba mu réeree moo ko dekkar dañ daan wax na ma ndombi tànk tëngee dañ leen defoon ay dàlli wanag daf leen i cara bu ñu yéegee simmileen leen ay jeex na ama amatul kenn ku ne jox nañ la la la waroon a jox moo taxawee ko fulla fayda aw fit am classe loolu nag am fulla torop nag moo war a ñépp a jiitu ba pare taxaw jiitalaa ko suñu kanam mu mat ka nag di ko doxe fii lu fi xew mooma lu xew ci département bi moom la bu nuy dox soolu coquette di wax lépp ngoom la kon Maodo na ngi koy ñaana di ñaana bépp borom ba bu fi ne di gërëm ñëpp di sant ñëpp di sargal bépp jigéen yéen Rufisque waa tamit dañ leen di gërëm xanaa tamit di leen gërëm mooy da ngeen di jàmbaar ci département de Rufisque bi dama ne bu jëkkaan bu xeeti baax baax yaa ngi fi woon ñu war ko wax daaw ñu am fuñ koy waxee wala tas ba daawu tasaaro mais lu ñëw ay lantinoor ngeen du ngeen tëye diw seen site bi tamit na sunu borom yokk ko yal naa toog ba ngeen na ay télé télé tëyewu leen diw de lu wàcc rek tasaare ngeen ko yal na yàlla fay leen maa leen di gërëm di leen sant jërë ngeen jëf.